بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوكي من لين دي نوي تدين زيا تدين يجلني التيجي نيوب الوقتان اليين كي أبتم تم بو حمين يكار نميني بو سخر جلد نيوي muy ton tombu bennoo bennoo jullit yi lislaam dafa doon diine ba noppi di tëralin dundin ni mu amee lu war jullit bi digganteem ak boroomam ñi la amee lu ko war digganteem ak société bi nga xam ne ci lay dund moo tax ay tërëliin war a am diggante jullit yi ak société bi nga xam ne ci la nekk ma jàmm am seen diggante ak déggu am seen diggante benno am seen diggante moo tax yàlla wax ne Muhammad yow Muhammad li ma daa wax yonent yi la jiitu yépp rek laa lay wax an aqimu diina wala tatfaraqu fii na ngeen topp seen diin lislaam te bu leen teqalikoo boo seetloo laaye boobu da gis ne am na ci ñaari parti yu nga xam ni ci lislaam taxaw benn wi mooy an aqimu diina koko wane ak jaamu yàlla wala tatafarako fii wane na ak bennoo kon me nag jaamu yàlla ak bennoo mooy bokk na ci xam ne ci lislaam sukkandiku bu ngeen xoolee ci histoire lislaam da ngeen gis ne bi yonent bi demee Madina am nañu ñu ko fa fekk ñu tudd ñu ñuy wax muhajir muhajir yi ne ñooñe fekk fa ña nga xam ne fa la ñu dëkk ñooñe ñu jën wax ay ansaar waaye li mu njëkk def mooy tabax ab société comme société de l'islam société boobu mi ko tabax ci ñeenti kenn kenn bu njëkk bi mooy ak benno ndax dafa day tàmbali di boole muhajirin yi ak ansaar yi ni mel di boole mooy صاحب مهاجريني ني خما دانيو جوغي مكه ديك فك فك محمد تي اندال وين دار باي لب سن غيناو تي يالا تخ ньо ني مو فخه با انصار لي دي لن ديمبلي دني فاب سيني تول di ko xaaj di jox kenn wàll gi ansaar eh, muhajirin di fab seeni soxna sax eh, di di di bàyyi lëf ci seeni soxna di ko jox muhajirin yi yooyu yëpp yëf la yoo xam ne day bokkale muhajirin yi ak ansaar yi lépp di ci benn ñaareelu kerno bi nga xam ne ci le société islam boobule tabaxoo moo di tabax jàkk moo di jàkk ci boppam jàkk nag du woon luy tabax rek di ci julli bu ñu noppi daal koy tëj jàkk booba tribune la woon barab bu nga xam ne dañ fay daje di fa julli waaye di fa jàng seen diine di fa waxtaane itam seeni mbir di fa nas seeni nas saxaaba yi daa fa ñëw muy waxtaane fi lépp loo xam ne ñor na leen lu jëm seen diine ak lu jëm seen doxalin adduna ñetteelu keno bi xam ne ci société bi taxaw itam mooy solidarité yàlla dafa bind yemalewul dafa jox lu ne gàññi ñenn ñi ñi ci def mu jox leen tuuti solidarité boobu nag ñu tudd nga xam ne ci lay société bi mooy ñetteelu kenn société bi mooy tax ñi nga xam ne yoroon yu ñu gàññ di fab ca lañ yor di jox ñi nga xam ne dañoo yor tuuti te soxla ko Lola, Jala, eh. chala eh. ngi ma yu bari duggé bu déma ni ki zakat bu déma ni ki sarah ak yenen ngi ma gi démé nona ci eh. lolou la duggé muy lo xane munte ñak bu fekkenté ni bëgg ni jamm am ci digënté ni ma kenn ku ne mëna top diiném nam ko waree ñeenteelu pilier bi nga xam ne ci la société bi taxaw mu société moderne boobu la moo di accord yi nga xam ne amoon na diggante jullit yi ak juif yi nekkoon madina ndax bi Muhammad di dikk madina ay juif ak foofu ñooñe nag bu fekkente ni muhajirin dañ ñëw ànd ak Muhammad ak ansaar yi ñu war a juif yooyu nekk bi Madina nekk gu neex nekk gu am jàmm day laaj ñu seen ñu am ay accord ay tëralin yu nga xam ne dana tax ñu mën a déggoo ba kenn ku ne maa nekk ci jàmm loola munte ñàkk ci société bii nga xam ne Muhammad bëgg na mu taxaw ci Madina loolu lépp nag ak bennoo rek lay joxeñ nga xam ne kon ak bennoo munte ñàkk ci lislaam yàlla wañu ko nag digal nu far ndigalu leer nañ ci ak benno su nekk benn min wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu dellu wax nu ne wa anna hadha sirati mustaqiman fatabi'uhu wa la tattabi'u subula فتفرق به عن سبيله ذلكم وصفكم به لعلكم تتقون لو دي ديغال لير نان جاب لين تي بوم تي بوم دي تي بوم يالا جي تي بو لين تخاليكو dellu ni lii sama yoon wii yoon wu leer nañ la bu jub topp leen ko te bu leen topp ñell yi ndax bu leen ko toppee daf leen di teqale dellu waxaat feneen inna haadihi ummatukum ummatan waxidatan ana rabbukum faabuduuni sama xeet yii benn xeet yi ma bëgg may tey may seen buur may seen yàlla jaamu leen mel ne kon dafa dellu rek di ak ànd ak jaamu yàlla tawxiid benn yàlla wéetu yàlla noonu yàlla digale ñu ànd nekk benn ñi lañu teree ñu teqalikoo wax na ko fii wa atiu laa wa rasulahu wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba wasbiru inna allaha ma'a saabiriin topp leen yàlla topp yonentam te bu leen xëccoo ko defee da ngeen di ñëw doole rek loolu feeñ na ci fexu ba ñu gisee li fees seen bët ñoom jullit yi wàcc nekkoon bàyyi la la ñoonte bu waxoon dem loola ca la di sonn ñu gañe fa gañe metti sonn fa lool te dara waralu ko dudul teqale bu بينيهم بينهم منين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة أولئك لهم عذاب عظيم àndu jullit yi nag ci waxtu wu ne la ware waaye ci waxtu wii mel na ne ci la gën a ware ndax bari na coono yoo xam ne jullit yi ñu ngi ko jànkoonteel ci ay barab ñàkk ànd gu ñàkk ànd ba noonu yi xam ne ñi ànduñu loolu rek moo ko waral waaye buñ àndoon xëy du demee noonu ànd nekk benn dafa war a nekk aajo jullit yépp ndax yàlla moo ko diggee tey it waxtu bu nekk ñu gis ni loolu farata la ju nga xam ne jamono ci bopp moo ko laaj nit ñi nag bu leen dëgg boolewul caaxaan teqale leen bu leen jaamu yàlla boolewul jaamu seytaan xajjale leen bu ñu xemmee mu xéwal yi ci àllaaxira itam dañuy xëccoo rek li xewel yi am fii ñu gis fii ci àdduna xewel yi ñàkk solo bari na ay defiin yoo xam ne ci lislaam ak benn rek lay joxeñ ak jaam yàlla lu demee ni ki julli mbooloo mu taxaw def ay sàppi ci ginnaaw kenn nit kooku nekk ci kanam jiite leen loola day dañ day daal ne ñi ànd nañu ñoo bokk ak jublu lu demee ci zakat di am solo fab lëf ci la nga yor jox ko ka nga keneen ku ko soxla te mun koo ñàkk loola day daal di ubbi ci kooku day daal di tax kooka ñeme la kooka sopp la kooka déglu la ngeen daal di mën a ànd nekk benn lu demee ne fi aji mag la boo ñu ko xoolee mbooloo mu tol noonu nekk fi benn barab di gisee di waxtaan di sottante xalaat di wax seeni problème ay fan tey mel ni ak tribune bu nga xam ne lig jullit la ñoo def ci di ak bennoo ak jàmm yàlla wootee xalaat yàgg na fii amoon na sax jamono yonent yi waaye wootee xalaat warta dem ba féewale ay xol ak di tas mbooloo bokk na nag ci li ñuy ci bennoo diisoo yàlla digg na ñuy diisoo ngëneel yu bari wa amruhum shura baynahum wax ci alquran dellu wax wa shaawirhum fil amri loolu wane na ne place bu am solo de diisoo am ci lislaam ginnaaw yonent bi nag moom yàlla daa wax wa shaawirhum fi amri woote ñun ñu ñun waxi war bu diisoo moom li yonent bi daana diisoo ak saaba yi bari diisoo naa ñoom ci diisoo naa ñoom ci Hudaybiya ak fu bare bare bare ci tooli xar loolu mooy li nga xam ne moom la ko yàlla digaloon loolu la def diisoo day dëgëral ab ànd ndax nit ki diisoo moom ci waxtaan caag moom day daal di am ci yow ak kóolute am ci yow ak cofeel kooku day daal di mën a ànd ak yow dafay daal di wóolu nga ko ci mbir moom borom ëtt bii borom penc yi Cheikh Mouhamadou Moustapha ku fonkoon di suba la daana wax ne man de su ma juumee mbooloo danañ juum ndax mbir mu mën a doon dina ci diisoo ak lu mat fukki nit yoo xam ne su ma toogee ci kaw ñu toog ci suuf suñ tubaar moo tax waaye boroomi xam-xam lañ ay julli piir lañ ñu bëgg lu baax la ñu boroomi xel lañ ba tax na ثم 다음에 ثم 주메뉴니 얘는 주 뭐로 되는 거 bokk na ci li dimbali ñu nekk benn ànd mooy wax ju rafet yàlla wax na ko muhammad wa qul li ibadi yaqulu lati hiya asad waxal sama jaam yi ñuy wax lu rafet nañuy wax lu rafet bokk na itam ci li ñuy dimbali ba tey ci ak ànd ànd bu rafet mooy dox ak mbokk rafetal ak mbokk wax na ko ci alquran innama almuminuun ixwatun faslihu bayna axwaykum wa taqullah laalakum turhamoon dellu waxaat ko فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واتقوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين lepp ñu ngi ñaax doomu aadama bi ci mu dox ay jéego rafet di wax lu rafet di defanteel rafet ak nit ak i mbokkam loolu mooy rafetal ab ànd mooy dëgëral ak benn bokk na ci lii rafetal ab ànd lii boole aw nit ñu jéggale ak jëllale yàlla wax na ko ادفع بلادي إيه، أحسن سيئة بلنك كي دفي من يعو فيك أو يو قال له وخ ادفع بلادي إيه، أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ويوم يلقى إلى الذين صبروا وما يلقى إلى ذو عظيم عظيم نبكي دفا وار نكو دفي لو نياو مو ملني كوكو يغي موم لو fayee ko lu rafet day mujj rek bu ngeen demee tuuti ci kanam rek day daal mujj kookee donte dafa nekk ab noonam day mujj nekk ab xaritam di ko gën a taq moo ne nag loolu lu jafe la ab cër la cër bu mag jafe la waaye lu jar essayé la lu jar jàng bokk na ci itam ci liy dundal ab ànd dimbalante te yàlla tax dimbalante ci lu baax te ngeen bañ a te ci lu baaxul ak noonu mu wax ko wa ta'awuna 'alal birri wat taqwa wa ta'awuna 'alal ismi wal 'udwan wa taqul inna Allah shadidul 'iqab sufus ben no nak dafa laaj engrais engrais bi moy banne ak intérêt personnel ni ko skulé ci sufus ben no rek dana benn dana mën a sax dana mën a dëgër dana am njëriñ ci wetu yooyu ñu dimbali ci ak benn ci ak ànd ci ak déggoo dafa am yoo xam ne dafa nu gàllankoor ci loolu day yàq daf ñuy gàllankoor ci ak benn loolu jara xam jara wattandiku loolu bokk na ci musibam lamiñ ay wax yu ñaaw ak i jëw ak yu demee nekk loolu jëw yàlla ko tudd méngale ko ak lekk medd tiim sa di ko lekk loolu la yàlla tëkkale ak jëw luy ñaaw mu wax ci alquran ayuxibu ahadukum an yakula lama axi maytan fa karihtumuhu wa taqula inna allaha tawabun rahim jëw ñu ko méngale ak lekk medd Cheikh Ahmad Bamba itam daana tere jëw lool lool lool daana ko tere lool daana wax ñim daa waxal na leen baa ñu ko leen di lakk wala ngeen walaan walaan dagg mooy lan ab jullit dafa amul lu dul lu baax lu la am boo ko dee jëw dañuy fab yow ñi koy jëw dañuy fab sa lu baax di ko def ca lu baax bu yàggee dootu am lu baax loolu mooy walaan dagg lakk dagg mooy jëw ku gratuit ku fi ab jugit dafa amut lu baax lu bon la am boo ko dee jëw dañuy xam lu borom loolee di ko indi ci lu baax di ko ci xëpp bu yàggee loolee bu yoroon ci lu bon lépp day ñëw ci sa yow lakk sa lu baax la dafa amoon loolu mooy lakk sa dagg jëw kon benn baaxu ci jëw jullit bi baaxut jëw ko dul ci nit ñu baaxut bokk na ci lii gàllankoor ak benn mer ak noonu yooyu dañuy tas mbooloo dañuy yàq ab diggante loolu tax na Seexul Xadim tere ko ba wax ci aw wayam ولا تعاد من رأيت فاء يخرج لا إله إلا الله كيف تنينكس من جنة جنة ينبغ لا إله إلا الله بولن كبولن ما نرمو بولن كبني بولن كنام أنس بن بن مالك دفنتي ne dafa am bis yonent bi toog ak i nit ba yàgg mu ne fii ñu de nit ku bokk ajjana nit ku ajjana dañu fekk miski am ku ñëw bokk ci ansaar yi yor jàpp moo ay dàllam ci loxo càmmoñam di ci yaa jóg mu dem ci ëllëg sa ñu toogaat foofee mu waxaat ne fii ñu toog day boo ñu fiy jóge dana am nit àjjana bu fi ñu fekk ñu fi fa ñëwoon ca démb sa jël si fii mel nam meloon ngërëm njàppam toog ba waxtu dem jot mu dem ñetteelu fan ba mu du toogaat foofee moom yonent bi ak ñoom ànd mu waxaat lam waxaatoon ci ñaari fan njëkk yi bala nu jógee fii de nitu ajaan nga mu fekk ñu toogaat tuuti kookee dellu siwaat mel na meloon ca démb sa bëkk démb ci jataay ba ba jot mu am ku ñuy wax Abdullah ibn Omar naasi ci jataay ba toog di ko ba yàgg mu ne ñoo ko topp dem ba kër mu ñuy waxtaan moom toog fa am fa ñetti fan ba jam jotee mu tàgg ko ne ko man de dafa damay bëgg a dem waaye dama laa bëgg feeñ li tax ma ñëw fii yonent bi daf ñoo wax ñu ne ñu ne la ñu fekk fii ñetti yoon yëpp bu ci nekk yow yaay ñëw toog weer ñu jàpp na nga ma bëgg xam nag yow looy jaamu noo jaamoo yàlla noo koy nga bokk ci ci àjjana kooka ne ko man de jaamu moo ko nen ni ko loo xam ne dañ ko def ne ko aha ma ne ko waaw baax na daa si ko defal ndànk képp man de am ni day lo xamne xamna wut sama bop modi man de bañuma kenn bañuma kenn ñane wu ma kenn bañuma kenn ci sama xol ñane wu ma kenn lam am ñane wu ma kenn nam ne lol di xamna wut sama bop Entar ah, ya, kene ke A, yo ket kon lolu men lay ni deg ci ni ñak ay banyak ci safar ak ñak kenyaan ci ni dama yobbu ci aje cheikh ahmad bamba mom dafa wax ni inna tahabba wal iman li ali sururu wa amanu أما تحصل في الإشقاء يقود أهله بالأخلاق المهم دفعوا وخني التفل التفل تبقى مرك مدق دق دم دي اندي البرام مدقتي أكو دم ak jàmm ak kiñaan ak kiñaanante moo mujj bijjël boromam lutul ak texe moo tax mu ñaan boromam mu tàppeel ñu suñuy xol mu tàppeel ñu suñuy xol def ci ak cofeel ak mbëggeel ci lu am teg ab xëccoo ci lu am teg ab xoloo ci lu am teg mer ndax nu nekk ay jullit yu toroxlu yu gëm yu sellal واشعل قلوبنا على تودده بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباعد ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين لولا شيخ الخادم الله بوكنا كيتا na ci ak benn du mën a am itam موتاخ مو واخني القران وقولوا لناس حسنا دل واخ وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد ديلين واخني من رفت ديلين دخلوا باخ دي واخلوا باخ mbokk sama kàddu yu mujj moo nan sant yàlla subhaanahu wa moom mi def ci baaxam ci kàttanam ñu fekkee bis bii tal ko man ko daje fii di julli julli gii julli ajuma kooku war nañ ko sant bu baax ndax bu ko du am daje nu daje fii nag te yàlla tax tegtal la ci ne ci yoonu benno ndax julli gi kenn ku ne mën na koo def fa mu bu ñu bàyyee loolu lépp dox ay kilomètres yu yi ñu dox bëgg ci fii ci tey ngir bëgg fee dajeeg jullit yii yépp bokk génn julli loola dal na xel loolu wone na ne benn noo gi yàlla bëgg noo ci dox luñ man kenn la suñ kattan yàlla na yàgg yàlla na sax may ñaan itam nag ñëpp ñu bokk ànd ñaanal réew mi jàmm ñaan taw feex ci réew mi ndax jàmm ci leen lépp xaj wassalaamu aleykum wa rahmatullah seen mbokk Abdou Fatah Mbacké Gaïndé Fatma